Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéene bi di xamal ne moom lañ jagleeloon lépp loo xam ne nag jëm na ci liggéeykat yi yéene kaay bi di ñu xamale réewum a ñi nga xam ne daal ñooy liggéeykat yi daal leen di wax dëggam leen xamal ne réewum Sénégal ak fi mu toll jafe-jafe yi nga xam ne nag moom la ñuy na la soxla yi jaakaarloo naa ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi wax leen seen kàddu dëgg yéenekaay bi di xamal ne lépp loo xam ne nag jëm na ci liggéey gi nga xam ne daal réewum Sénégal ma ngay xamal ne jamono ji réewum Sénégal bari na ay soxla yoo xam ne waru nañ koo def ndaxte bu ñu xoolee lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu liggéey gi maanaam ndaw ñi nga xam daal mbir moo xam ne njiitu réew mi loolee ñor na ko lool ba tax na démb kay bi mu jàkkaarloo Sénégal ñooy liggéeykat yooyu la yëkkati yéen kaay bi ne na ko jëmale ko ñoom laas yéen kaay duñu xamal ne moom kay a wax seen xam ne daal moo a nekk kay njiitu réew kay jamono ji na ko ne jëm na ci salaire dem ba mu leer nañ waaye tamit di xamal ne lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu logement waaw cent mille logement daal bëgg nañu ko ci réewum Sénégal waaye tamit lépp loo xam ne itam jëm na ci liggéey waaw maanaam mbir woowee danañu fexe daal ba mbir moomee ñu xool ba naka la ñuy def ba yokk ko ci réewum Sénégal yéen i bi dañu xamal ne dañu doon jànkontol yéen i bi dañu xamal ne foofe kay feeñal nañ moom la doon fësal waaye tamit ak njaaj goo xam ne nguuru Macky Sall gi daal dafa jàpp ne élection yi nga xam ne moom la ñu génn jot nañ koo amal waaye daal ñi nga xam ne daal ñeneen ñoo xam ne daal feneen la leen doon yóbbu ngir ñu vote critique yéen kaay di xamal ne moom Idriss Seck dafa mel ni a yeewu ndax élection a bind livre kay dafa mel ni kay kay dafa mel ni da doon nelaw yéenekaay bi di Les Échos Vox Populi di ne naka jëm a faat gannaaw nag di yëkkati ci lépp loo xam ne naka jëm na ci àtte boobee la ca xam ne moo di ñoom daal dañu doon layal kii nga xam ne daal mooy Serigne Cheikh Béthio Thioune yéenekaay bi dañu xamal ne ak lu mel di xew mbir moomee daal mbir la moo xam ne naka dañu koy topp la tribune yéenekaay di yéenekaay bugaan gay dani gi moom nag di gàcc mbir mu doy doy waar muy sàngara si yi nga xam ne daal moom la ñu tuddee Jakarta ay yéen i kaay duñu xamal ne réewum Sénégal boo moytuwul ay ne daal moom la ñuy tuddee Jakarta mu nekk sàngara su yong bu soo xam ne gone yi Sénégal yi koy musiba yoo xam ne daal mi ngi koy amal muy sàngara soosé nga xam ne ay moom la ñuy tuddee Jakarta yéen i kaay bi duñu ne bëri na jot nañoo faatu te leen faat moo di sàngara si yi nga xam ne nag moom la ñuy tuddee Jakarta